Le Magal fàttaliku julli géej gi 21 septembre 1895 21 septembre 2018 nous voilà plus d'un siècle aujourd'hui que l'humanité se rappelle encore de la prière symbolique du Cheikh Ahmadou Bamba sur l'océan lors de sa déportation en exil vers le Gabon c'est dans ce contexte historique et surtout religieux que la communauté du mouridisme sous le ndigal et la bénédiction du Khalif général Feu Serine Saliumbake a décidé de se réunir en daïra et en association dénommée le kuréel fàttaliku julli géej gi. màggal mi ngi mën nañ ne mi ngi soxoo ci sëñ bi rek Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul. bi mu namee liggéey bi taxaw daf ko sotti ci xel doomu aadama yi toogoon di waxtaan. ay mbokki su légit de sëñ euh, Mountakha Bassirou nii tey. julli géej gi du kenn mooma te dërëmam moo ci njëkk jiitu te moo ne teg teg leen temps temps temps te it yemu ca. il a la première personnalité à cotiser donner une cotisation je crois que c'était cent vingt huit mille francs parce que lui qui avait instauré n'est-ce la somme de participation. dafa wëlbati ko ne nag gannaaw xalaat dañ ko ba rafetlu ko maa ngi dem nag ca sama Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul muy Serigne Saliou. bi mu ñibbee Touba seeti Serigne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 et c'est feu Serigne Saliou Mbacké qui avait décidé que cette journée soit la journée de Dakar la journée de la Mouridiyya à Dakar. Serigne Saliou Mbacké yal na suñu borom dolli ay leeram te taas ñu ci barkeem euh, le khalife Serigne Saliou avait béni cet événement en disant nommément je souhaite que ce soit le jour le plus grand jour pour les mourides à Dakar. Le Magal fàttaliku julli géej gi un événement religieux officialisé dans le calendrier annuel des institutions et organisations du Sénégal. L'instruction du chef de l'État et de son Premier ministre et de son ministre de l'Intérieur, nous avons pu faire un CRD présidé par le gouverneur de l'adjoint au gouverneur de Dakar, chargé du développement. et le CRD s'est très bien passé. La semaine qui suit, nous avons pu faire un CDD sous la supervision du préfet de Dakar et le suivi a été fait pour voir euh, effectivement si tout se passait très bien. Et durant tout le mois de septembre, euh, le chef du gouvernement, le Premier ministre en particulier, donne des instructions à tous les ministères concernés. à tous les chefs de service concernés pour que tout soit mis en œuvre pour une parfaite organisation. En tout cas, nous avons l'accompagnement de l'État durant tout le processus. Le kuréel Fàttaliku Julli Géej gi, c'est d'abord et avant tout un groupe de personnes engagées et surtout mobilisées autour d'une organisation méthodique et perpétuellement perfectionniste. Le kuréel, c'est en fait une fédération de daïra, de plus de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 très grand événement parce que c'est deux jours. Le premier jour, c'est donc affecté à l'exposition, la grande exposition Mouride, donc en parlant sur l'esthétique Mouride, l'histoire même du Mouride, et également dédié à le Ngontel de Mam Cheikh Ibrahima Fall. ñun nag kuréelu julli géej gi ni ñuy doxalee ñun jigéen ñi mooy dañuy sasu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 Le Magal Fatelikou du Ligedgi, qui marque sa particularité par la diversité de son programme d'activités culturelles et la richesse des contenus, est organisé sur deux jours. La journée du 20 septembre, essentiellement dédiée à Mamcher Ibra Fall, et la journée du septembre, principalement consacrée à la commémoration de la prière du cher Ahmadou Bamba, suivie de la cérémonie officielle. Tout le monde sait qu'on ne peut pas célébrer Cheikh Ahmadou Bamba guddub Serigne Touba mooy maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridiin looloo waral la 20 septembre yaa ngi guddib maam Cheikh Ibrahima la journée du 20 pour l'exposition parler de l'histoire mouride de Serigne Touba. liggéeyal sëñ bi mu ngi door ci fàttaliku julli liggéey bi waaye mi ngi door it ci waxtaan sëñ bi maanaam li nga xam ne ku tedd ki joxoon nañu ko muy sëñ Saliou. maanaam armo bi mu ñu joxoon ngànnaay li mu ñu joxoon ci lim ci ci ci ci téere ci alquran ci lim ci ay xasaayit ci lim ci ay werd loolu mooy fondamentaux yi du fi jóge mukk ila yow mi diin le 21 ñu ñëw na ci bis bi nag mu doon bis bi bu ñu xëyee le matin fekk fekk ku ne répartir nañ ni ma la ko expliqué wàññi yi mooy yor wàññi ko soxna Sodo mooy cuisine centrale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 connus pour leur engagement dans l'expansion des sciences coraniques et les valeurs islamiques au Sénégal et à l'étranger. li ko sëñ Mourtala déggee moom moo wax moom sëñ Mourtala ne maay doon ilimaanu kuréel ci ci dañ ko sàkku ci moom. Je viens de le dire effectivement sëñ Mountakha Bachir a été a dirigé la prière pendant plusieurs années. Avant lui, il y avait son son père, son vénéré père, Sëñ Mourtala Mbacké, qui a eu à diriger cette prière. Il y eu Seigne Abdou Hakim Mbaké aussi a eu à diriger cette prière. Seigne Mamor Mbaké, fils de Seigne Moutoula Mbaké, également a eu à diriger cette prière. Donc ya y a eu beaucoup de, de grands marabouts, machallah. ci ndigalu euh, Seigne Mountakha euh, Seigne Fallou